wa jawwasu daganal nañu qiraat alquraan yi jàng alquraan waaye nag mooy tari rek ci làmmiñ li xaa idir ñal aji mbërëg maxaafatan nisyaani ngir ragal fàtte ñu koy wax fëtt ci wolof daañu may ki nga xam ne daa gis deret te deret ji jeexagut ba mën a sangu daañu ko may muy tari alxuraan ci làmmiñam la mokkalan ndax bañ koy fëtt waaye nag suñu talaal kaamil suñu talaal téere alxuraan ba wala muy jur daganut li sow ji xaa ñeel jëkkëram ja añ yatta am laal farjal ab sawukaay laxaa ñeel ko xam dal ci tey aw xataan wala ci njuumte sawaan ñu way yemoo ci gàttal wala la di ko ñeel maa la nga xam ne bay na suur na si nekk na diggante jumbax laxaa ñeel jigéen ja waruk bati ak bati woom xataa tuuti ma ba muy matal boo ko defee xus laxaa muy cangaayam la xus la moo gën a yell foofu daa wax ne nag jigéen bu xasee gis deret jooju takira deret day jeex ba mu sangu gam séqal góor gam ko séqal muy jëkkëram wala bu dee jamono yi jaam ame ko am ab taara jaam bu jigéen na normal la tàmbalee jumbax ba ci bëti wom ba lu bokk te loola ci yaramu jigéen ji mën na koo laal moom jëkkëram ba ab sangam bu dee jamono yi ab taara amee waaye nag na moytoo joteeg moom ci sawukaay mbaa laal dara ci li tàmbalee jumbax ba ci bëti wom lu bokk te loola nag moom mën na koo laal fas lu ni ab dog la wama ak la nga xam ne yataallaqu dana aju bi ci moom daa wax ne tey bëgg wax nag deret yoo xam ne am dooma ko waral mooy wasin ak lu ci aju nifaasul wasin xadd badaa moom feeñ na kal xay di ni ngi mel ni mbërëg fil man ci tere ga nee na ku amee deret wasin na xam ne lépp lu aaye woon ko amee deret mbërëg rek aaye woon nañ aaye nañ ko ko moom it moo xam julli la moo xam woor la moo xam dugg jàkk la moo xam wër kaaba la moo xam laal kaamil la yëpp ñoo ko bokkale ak saruhu gën jaa bareem mooy gën jaa yàggam xoddida limeef ko sittiir mooy juróom-benn fukk yow man ci ay mu yàgg-yàgg jigéen ja moom du weesu juróom-benn fukki fan mën naa gaaw a jeex na ni ki mu am doom rek mu sotti ko daal di jeex mën naa mu am benn bis mbaa lenn bis mën naa am ak ay fan waaye nag mën naa yàgg itam lu mu yàgg-yàgg daal moom du weesu juróom-benn fukki fan su amee juróom-benn fukki fan ti taxul mu jeex na xam ne kon jàngoro la daal di sangu di jullee ko war a def yëpp yëpp tu umaru def na ko digal bil xusli ci cangaay la maxasalaati ànd ak julli ga in baana dem feeñ na in xitaaxun ak dog xablaxaa ci nekk juróom-benn fukki fan yi kama sukki na niki miineef ko mooy li ma doon wax léegi su fekkee amagul juróom-benn fukki fan waaye gis na deret ji jeex na ndax li ma ko waxee woon mën naa sotti ko daal di jeex mën naa gaaw mën naa yeex saa yu deret ji jeexee rek nga xam ne ameetul deret daal di sangu cangaayal farata daal dellu ci jullee ko war a def jaamu yàlla yëpp ak jote jëkkëram dewam soob na jëkkëram ci soob ko su ma isaa xaawa daxaa topp ndéem des na ci moom addamu deret ja wakaana te nekk bay naxumaa seen diggante yajibu fukk ak juróom ak ak saru mbaalu ko ëpp baana loolu feeñ na fat saani kon aj ñaareel ja min xumaa ñoom ñaar yekkoon dana nekk xay dan dimb rek mu tànn fan mu dimb ñu sos indal faqihi fa aji dégg ci fiq ay dan ba tey maanaam bu fekkee deret wasinam daa jeex mu tàmbalee sangu ak jullee ko woor far deret dañuy seet kon fa mu jeexe woon ak fa mu del ba xam ñaata fan la bu fekkee diggante mat na fukki fan ëpp ko dañuy jàpp ne kon dereti wasin ja foofee la yemoon deret ji ko feeñulee juñ mbërëg la dara dara wa in yëkkun dem nekk bay na xamaa seen diggante duunee ji bi lu yees fukk ak juróom yow man ci ay fan fa dammuhoo kon tàppeem nga lil awali jëm ci aji jëkk ja yee ji bu dana war tuma ida nazarta topp ndeem seet nga wala topp ndeem xool nga fil xiyaas ci xiyaas wa jattaxoo nga fekk ko mu tam mi man nifaas muy li mottali dereti wasin waa bu fekkee deret ju njëkk ja fa mu jeexe woon ak fi mu si siwaate seet nga ko waaye matul fukki fan ak juróom loolu ba nga jàng risaala leeralal la lii ne la lii la ñuy sukkandikoo la mu waxal matutoon lii waaye bu fekkee fukki fan juróom rek jàppal ne dereti wasin ja mooy jeexutoon lii feeñaat ca jooj ca jooja la bokk ko defee mu jël ji tàpp ko ca jooja mooy boole ko jooja di wàññi di wàññi nag ba mat ci ba benn fukki fan bu jeexee baax na bu jeexul nag mu xam ne jàngoro la moo tax mu naan ndegam seen diggante fa jeexoon ak fi mu ñëwaati mëtul fi ko mëtul fukki fan juróom kon boo seetloo gis ne dereeti wasiir ba moo jeexutoon lii da koy mottale li ab dog la fi maarifatil awqaati ci xam waxtu yu julli ya day bëgg a dugg waxtu yu julli al waxtu waxtu wa yan xas mu dana séddalikoo lil muxtaar yi jëm ci muxtaar walit daroori yi ak jëm ci daroori yi la dal axbaar yi foofu fóoriya nee na waxtu julli ci yoonu Malik dañ koy xaaj ñaari xaaj xaaj bu jëkk bi moo tudd muxtaar nga xam ne bu dee ci sa coobare amoo ngànt doo ko sañ a weesu te julliwoo boo ko defee rek am bàkkaar bu mag a mag daroor yi moom daa bàyyi ko ci darooratu bi fi di lor nga xam ne boo bàyyee ba ci xaaj ñaareel ba tudd daroor yi nga julli ci fekk lor a ko waral muy ngànt kon doo am bakkaar muxtaaru buufurin muxtaarum tisbaar min zawali shamsi mi ngi tàmbalee rëccub jant li aaxiril xaamati ba ci mujjug taxawaay doona labsin ci lu dul lant ni ñuy xàmmee rëccub jant bi dañu koy xàmmee ci xool takk ndeer yi nga xam ne boo xëyee suba di xool mboolem takk ndeer yi dañuy féete sow ba noppi nag di wàññiku ndànk ndànk keroog su ko ma ne tekk wàññi koo tul nag mën naa mu jeex takk mën naa mu bañ jeex waaye daal dem naa wàññi ko ba ne tekk wàññi koo tul loolu mooy rëccu jant wi dañuy bàyyi nag ba keppaar ga jël rëddiku baa bu fekkee amutoon dara ci as keppaar mu def keppaar ñu jàppale nag ne foofu la tisbaar tàmbalee dana dema dem nag ba nga xam ne boo nattee takk ndeer ba mu guddee ne boroom man ngaa jàpp nag ne jenn jëmm ju ne bu nattee ñeenti xasabam mooy tollooku taxawaayam ba tey ndëggoom bu ci nattee juróom-ñaar ba tey mooy tollooku taxawaayam su demee dem ba nga xam ne nag léegi boo nattee takk ndeer ba te konte waale woo ci nam toll woon ci ba tisbaar du jot dana mat ab taxawaay noonu ñu wax mooy takk ndeer ba guddi na ne boroom su boobaa kon foofa la muxtaarum tisbaar yam daroor yoom nag mooy tàmbalee foofa ba jant bi ba jant bi bëgg soo nga xam ne genn julli moo ca xaj su boobaa nañu far ko moomali takkusaan daal di koy génne moom tisbaar wal xasru takkusaan muxtaarul muxtaar laxaa ñeel ko min xaa tàmbalee na ca xaama ga illaa waqtis firaaril ardi ba ci waxtu gelu suuf sa lal yooxi waxuñu soog jant inqilan na nga xellu muxtaarum takkusaan mi ngi tàmbalee ci fa muxtaarum tisbaar yemoon xam nga da nga ne woon bu takk ndeer guddee ni boroom foofu la muxtaarum tisbaar yam foofee nag fa la takkusaan moom jote dana dema dem nag ba bu la neexee ne bu takk ndeel ba ñaar caa a waxin la bu la neex itam ne dana dem ba suuf si xaw a gel maanaam suuf si xaw a xong ndax bu jant bi bëgg so muy xaw a xongee day laal suuf si ba boo xoolee suuf si kër yi jàppaloo naaju du weexati day xong loolu mooy gelug suuf si foofu nag fa la muxtaarum takkusaan yam dana wax nag daroori bi léegi waaye daroori bi moo tàmbalee foofu rek fa muxtaarum yam ba jant bi so moo tax mu naa am mat daroori yu ndaal daroori yu li haasay ni ñeel yi la yaar maxan boole seen fa li xoroo bi yooxi jëm na ca sowug jant ba xindaman fa ka nga xam ne waxaa wattu na xam-xam ñoom ñaar kenn ku ci ne fa muxtaaram yam rek fa la daroor yoom tàmbalee ba jant ba so waaye nee naa nag bu jant ba dee bëgg a so ba mu des loo xam ne genn jullee ci xaj rek say boo ñu moomale ko takkusaan bi nga xam ne moom mujj boo ko dee seetlu nag mi ngi dugg ci daroor yu tisbaar wa maxribun timis muxtaaruha muxtaaram xul waxal ne xadruma mooy kem loo xam ne tusalla def na ko mën a julli fii ci moom baada chartin ci gannaaw chart xul yi ma na ko ka sartali xawrati nit ki suturaal awra wa tuhuril xabasi ak laabu xabas xabalal adaanay ni ci njëkk nodd ak liqaam wa tuhuril xadasi ak laabu adas timis muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu bi sooyee bi jant bi sowee nag boo ci tegee as liir soo xam ne mënees na fee laab nodd fi liqaam fi taxawal fi julli fi ñetti rakk rek liir su toll noonu rek nañu jàpp ne kon saaru timis daal jeex waaye nag li gën a yomb ba xamle mooy nga ne rek mi ngi tàmbalee fi jant bi sowee ba shafaq fàddu shafaq mooy xonk yi nga xam ne mooy des fi jant bi sowee woon bu demee ba raaf nag loolu mooy fàddu shafaq foofu foofu la muxtaarum timis yam gee tàmbalee foofa su man xisaaw topp gee ma maxi bi shafaq yi mi ngi tàmbalee ci fàddu shafaq muxtaaruha muxtaaram li sulusi layli ba ci sulusu guddi ga ittaqi na nga ragal yàlla muxtaarum gee mi ngi tàmbalee ci fa timis yam mooy bu xong-xong yi raafee fa la timis yam foofu la gee tàmbalee dana dema dem nag ba boo defee guddi gi ñetti xaaj fa xaaj bu jëkk ba yam rek foofu la muxtaarum gee di yam guddi gi da nga koy tàmbalee fi jant bi sooyee ak fa ñu noddi salaatu fajar boo ne jant baa léegi ci sept heures ko defee nga ne ñu ngi noddu salaatu cinq heures quarante cinq diggante boobu boo ko defee ñetti xaaj fu xaaj bu jëkk ba yem rek fala muxtaarum geeyam xam ne kon danay wóote ndax guddi yi day gudd ak gàtt bëccëg yi noonu su man sub topp nga askan daroori yal xisha daroori yu gee wal maxribi ak timis ila tulooxi saadiqil fajri ba ci fenku aji dëgguy fajar maanaam nag boo xësee xam timis fa muxtaaram yam gee itam nga xam fa muxtaaram yam xamal ne kenn ku ci ne fa nga ne fa la muxtaaram yam rek fa la daroor yom tàmbalee ba fajar fenk bu fajar fenkee rek ñoom ñëpp seen daroor yu jeex na te buñ demee sax ba la des sa diggante fenku fajar genn julli xaj fa dañ koy moomale gee yu mujj te bàyyi timis wa jaxal defal muxtaaran muxtaar li suub si ñeel suba min hu mu tàmbalee ci fenkuk fajar ilaa isfarin ba ci ak set en laa gu gën a kawe xadd jalaa goo xam ne wuññu na maanaam feeñal na lil wu jooxi ñeel kanam ya muxtaaru suba mi ngi tàmbalee ci bu fajar xaree ba leer gi tasaaroo leer googu mi bàyyi ko jant yi bëgg a fenk si rek mooy tàmbalee andi leeram leer googu nag boo ko dee seen muy génn ca penku di tas di tas nag ba yaatu nag ba leer bu baax a baax xam ne kon muxtaaru suba foofu la tàmbalee dana ñëw ñëw nag ba nga xam ne bu nit dee ñëw te muurul kanamam boo xoolee kanamam xàmmee ko loolu mooy set wax boobaa fa la muxtaarum suba di yem daro joo tàmbalee foofu nag ba catu jant ba génn moom lay wax na wa minhu tàmbalee na ca set ga mabda ub daroori yi njëlbeenug daroori yi ilaa tulooxi xursi shamsi waahibil ilaa ba ci fenkub catal jantub yàlla mi aji maye xéewal set ga nga waxoon léegi ne fa la muxtaar ma yem set gi mooy sikk ba ci sax waaye bu nit dee ñëw daan su kanam kanamam nga xàmmee ko foofu la daroor yu tàmbalee nag ba cat jant bi génn bu cat jant bi génnee rek kon xamal ni suba ñaari waxtoom yépp jeex na su ma xadaaw topp fay ga yi dana askanu fil jamihi ci mboole seen li baax di dil awxaati jëm ci gannaaw yi ne waxtu xindal xàkkam yi fa aji àtte ja ñépp maase na ci ne boo jullee ci muxtaar ma joox nga moo julli nga ci waxtu wa boo jullee ci daroor yi joox nga julli nga ci waxtu wa gannaaw bu yaari waxtu yëpp jàllee nag moom boo jullee te des koy tudde alqada maanaam fay bor waaye julli woo ci waxtu wa na ngay moytu nag ñu ngi koy bëgg a waxee léegi bàyyi ba muxtaar ma jàll nga julli ci daroor yi te amoo ngant ngànt tax mu naa wan mi na nga askan wan mi na nga askan xaziman zambi aji rëyi bàkkaar lil mu wax yi ñeel aji yeexi julli xataa tafoo taxoo ba dana ko faat bila xusurin ci lul ngànt dur yi loolu xameef na ko nee na ku yeexi julli ba julli ga raw ga daal moom dana amee bàkkaar bu rëy rëy bu fekkee amutoon ngànt boo yeexee muxtaar mi sax ba ci daroor yi te amoon ngànt rek danga am bàkkaar bu rëy rëy avantel na nga far yeex yaari waxtu yépp ba fay bor rek des ca xam daroor yi sax far nawee wa kuriha sidéef na naflu naafila laa qadaul mansi waxuñu fay fàtte bax da subhin ci gannaaw suba li tulooxi samsi ba fenku jant gannaaw boo xasee julli suba man nga ne soo rek bu fajar xasee fenk rek fajar xasee fenk dañuy sib mboolem xeet naafile yi ba mu des ñaar rakkay fajar ba jullee suba it noonu sib ga ñëw moo wéy rek di wéy di ba nga xamee ne catu jant bi tàmbali naa génn bu jëf jant bi tàmbalee génn nag moom te lépp génn gut araam lay def day weesu sib bu jant bi lépp génnee ca fenk ga sib ga del siwaat ba mu yëkkati ku tolloog ñetti mètre ci sa xoolu bët bu yëkkati ñetti mètre ci sa xoolu bët nag foofu la naafila daga ne bu la neexee julli yoor yoor mu wéy rek nag yoor yoor waxtu waxtu foofu lay tàmbalee dana dem ba ne tisbaar di bëgg a jot yoor yoor door a jeex fay lu ñu fàtte nag moom amuluñ ko waxtu saa yu amee boru julli rek moom waxtu la neex mën nga caa fay waxtu wañ araamaloon naafila sax mel ne fenku jant mbaa sowu jant sax du tee mën nga cee fay bor wa baax da xasrin ak gannaaw takkusaan li salaatil maxrib bi ba julli timis xamal ne gannaaw boo xasee sëlmal takkusaan rek dañuy sib naafila ba kere jant bi tàmbalee so bu jant bi tàmbalee so te lépp soxagut araam lay def bu soxee ba noppi itam bu dee ci yoonu Maalik sib ga ba kere ngay julli timis ba ba'da fajrin ak gannaaw fenkuk fajar inda kulli aribin fa jépp naa ko wax léegi gannaaw bu fajar xasee fenk rek moom dañuy sib julli mboolem xeet julli naa fi ba mu des ñaari rakay fajar dong lu bokkute moom doo ko fa mën a julli li tax mu wax loolu nag mooy lee mu ci bëgg a teg laakin na dal wirdi waaye nag boroomub dog jawaasuhu daganam ga yu daa def na ko gis la waññal ko ida xalaba ndem not na alkara nga meen la xay nay si ñaari bëtam ya daa wax na bu fekkee ne da nga amoon bog boo xam ne guddi gu ne nga yeewu ko tey nag moom nga biddanti ba fajar fenk mbaa mu jege fenk bu ñu nee fajar mooy rek boo fi bëggee def lépp du xaj fekk fajar fenk balaa noppi koy dutee rek ñu may la yow ne kam dog bi baaxoon nga koo def saa yu nekk rek dañ lay génn ci sib ga may la yow nga def sa dog boobee doonte fajar fenk na itam mën ngaa gaaw def ko rek bala ngaa julli suba wa naflu naafila in jalla sa ndeem toog na fa waxal bari ci kaw minbar ba imaamu jumhatin ilimaani ajjuma fàq dong kurhun ak sibla duri ko xameef na ko dama wax ne ajjuma bu ilimaan ñëwee ba toog ci minbar bi te tàmbaleegu te ba kon dañu sib rek nga tàmbali fa naafila bu fekkee nag nekkul ngay naafila nag moom da ngay gaaw àggale ko bul ko dagg waaye bu fekkee tàmbali woon moom dañu sib nga naafila su ilimaan tàmbalee xutba nag moom bu dee ci yoonu Malik day araam nga naafile ndax dañuy jàpp ne xutba bi farata la déglu ko farata la kon nag jekki di naafile moom kenn du jekki di def naafila bàyyi farata moo tax ñoom day araam ci ñoom yooyu jamono nga di fa tàmbali ak naafila ndaxam ñëw na ci at yi sax yonent bi doon xutba kenn ñëw mu ne ko julli nga mu nekko ko déedéet mu ne ko jullil waaye taxul waa Malik moom daa am nu ñu ko gisee am nu gisee xisa boobu ba lu wér ci ñoom daal mooy bu ilimaan xutba moom day araam nga tàmbali fa naafila wa mën a xooxu tere nañu ko moom naafila baax da jum xatin ci gannaaw julli juma isa lam yoo xam si nem génnut al imaam ilimaan ba masjidan ci jàkka xutan na nga jàpp ba tey bu ba noppi ba noppi te génnagut dañuy sit nga tàmbali fa naafila su ko see génn nag mbaa mu toog fa diir boo xam mën naa génn xëy na dafa am yitte waxtaan mbaa dara moo te moo ko tee génn waaye mën naa génn soo boobaa boo génnaa fi la mën ngaa naa fi la ndax la waxuraan fa isa qudiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah bu julli gi jeexee tasaaroo leen sàkku ci ngëneel yàlla jublu ci ne daa war nga daal di génn suñu la faa naafila mbaa dara déedéet moo bu armaloon aj mbaa umra ni la boo yooyu ko mën ngaa rëbbu sañ ngaa dangaa sañ doon a rëbbu wala léegi la jubluwaay niw ñi daa araam nag léegi ba boo sëlmalee ajjuma doo fas araam nga naafila mbaa nangam déedéet day wane rek ne lañ aaye woon ci xam ne sañoo woon a génn bàyyi fa julli ga xutba bi léegi julli ga xutba bi jeex na mën ngeen génn wuti ci ngëneelu yàlla yi moom mu ne rek bu ngeen yooyu koo ci aj ga bàcc xumra ga mën ngeen a rëbb rek jubluwul ne faaw dangaa war a rëbb ji ate ni ab dog la fii shurooti salaati ci sarti julli qad intahaa jeex na alkalaamu wax ci waxtu julli fal aana léegi nan sarifu daan wëlbatiku li salaati jëm ci julli ga wax nañ waxtu julli ba noppi nag kon léegi nan la waxal kon nan la waxal nag jëmmi julli ci boppam amma salaatu daal julli fa shurutuha ay sartam tahaaratul xadas yi mooy laabu xadas tumma tahaaratul xabas topp laabu xabas fi taw bi ca malaan ma wal badani ak yaram wa wal makaani ak béréb ba nee na julli daa ay sart yoo xam ne bokkut ak farata ya sart yi nga xam ne moo koy taxawér bokk na ca laabu xadas laabu xadas nag moom moo gën a diis ci mboolem sart yi ndax moom mooy bu la jàpp waree nga jàpp bu la sangu farata waree nga sangu boo amee ngànt bu mënu yooyee nga tiim kooku moom boo boo ko fàtte woon defoo ko dem julli du tax julli nga baax waaw tey bu waxtu jotee ba jeex te amoo fa loo laabe su waxtu yi tàmbalee ba jeex te amoo fa loo laabe du suuf du ndox rek jàppal ne kon googa julli wàcc na la du war nga fay ko ci wax ci gën a wóor laabu xabas nag moom moo xaw a gën a woyof moom mooy bañ a julliwaale sobe ci saw yaram mbaa say yére mbaa béréb bu ngay jullee moom boo ko fàtte woon julliwaale sobe julli ga baax nañu sopp rek nga baamu ko ci waxtu wa bu waxtu wa jeexut doon ci gis sax nga fàttaliku sobe te wax xat xam ne boo bàyyee doo ci am lu matu barak da wéy rek ba tax moom am nag jàppande wa satratul awra ak suturaal awra bil kitmaani ci nëbb ga ba tey bokk na ci sarti julli bu dee góoroo bu dee góoroo jigéen mu sàng awraam sàng awra jooju nag daañu leeral lan mooy awray góor ak lan mooy awray jigéen waaye nga boole ca wastaqbil te nga jublu al xibla te xibla bokk na ci sarti julli jublu xibla jublu xibla mooy boo nekkee màkk ak la ko wër nga xam ne mën ngaa jubloo jëmmi kaaba gi da ngay jàkkaarloo jëmmi kaaba gi boo dee julli bu fekkee nekkoo foofu nag nga seet wet nga xam ne fa la kaaba ga féete nga julli jëm foofa loolu ma jublu la ab sart la ci wérum julli gi su ko tayee bañ koo def rek julli gi du baax watruk te nga bàyyi alkalaama wax wa kulla fi'lin ak jëpp jëf li munaajaati salaami ngir déyanteeg yàlla mi aji mucc ci ayib dafa wàññi waale ci sarti julli yi nga bàyyi lépp lu dàqonteeg julli lépp loo xam ne mënta àndu julli rek xam ne yàq julli rek nga bañ koo def niki wax te tey ko wax joo xam ne ajuwul ci julli ak jëf jëf ju bari yoo xam ne bokku ci julli yi boo doon julli di dox ba ci kanam nga dellusiwaat gannaaw xam ni mooy xibla waaye ngay dox say tànk ba ci kanam nga arrière ba ci gannaaw loolu bu buy xaw a bari dara rek julli gi yàqu ndax yaa ngi jëf ci julli gi jëf ju bari ju bokkul ci julli wa awratu rajuli awray góor duuna may na ci lul seen maa mooy la nga xam ne bay na suurati nekk na diggante jumbax rukubati ak ñaari bati woom góor awraam yomb naa sàng mooy tàmbalee ba ci ñaari bati woom rek xam ne moom bu solee tubay sax te tubay ji àgg ca bu jumbax ba dem ba ci bëti bi rek awraam sàngu na waaye dañoo sopp mu rafetal ak colom ndax sàmm teeg yi digganteem ak boroomam amoon nisaaw daal jigéen ña fa jamihul gis mi mboolem yaram wa yu àddu def na ko lim awra tam mi awra la daal di xéemee fa boroom xam-xam ba jigéen nag moom yaram wépp awara la ba mu des lee muy bëgg génne mooy illal la si ndare la nga xam ne ustus nii seetteef na ko mooy génneef na ko nil ka fay ni ci ñaari teng ya ci ak duuna rësi ci dul bopp ba war ci layin ak ñaari tànk ña bu dee moom yaram yëpp awra la daa war a sol lu tal te jot te muuru boole ci ba mu des kanamam ak ay téngam lam sol sax daa war a buub ci kaw ndëggu ya kanam gi nag moom bàyyi ko muy kanamu kese téng itam du aajo wa sol ay gants mu ci muur dara na def rek kanamu kese ak téngal kese waaye lu bok te loolu rek ci yaramam war na koo sàng te sànge ko tal boole ci daa war a ne bopp ba awra la tànk yi yëpp war na koo sàng kanam daal peng bi rek moo bokkul ci awra ji wakrah sibal salaatan julli fi saraawil ci tubay isaalam yëkku ndéem yëkkut shay'un dara faw ko xoo ci kawam tuujar kon def na la yool idan boobee waxa ko léegi maanaam góor moom te mi ngi tàmbalee jumbo ba ci bëti woomu kon rek mën na koo sol mu sàng awraam jépp waaye loolu nag sib nañ mu jullee tubay kese kese noonu dara bañ a nekk ci kawam na sol bu mag mbaa leneen daal loo xam ne ak làmbaay la mbaa leneen loo xam ne dana rafetal col ga digganteem boroomam loolu taamu nañ ko ca waaye sib nii rek wana gisu taw bi aju sobi wu malaan itaa faqda ndéem ñàkk na maan am ndox waxadimate mu ñàkk as taw ba meneen malaan min baadil timaasin ci gannaaw sàkku fa indahu naka moom yu sal yi dana julli bi haa ak sobe sa in yaxaf ndéem dana ragal xurooji waqtihaa génn waxtoom wa bi xawli ci waxi ka nga ne arafa xam na bu fekkee benn yëri nga am mbaa ñaar sax na koo doon mbaa mopp ko waaye daal yëpp am sobe amu ci benn bu laab te amu meneen mbalaan mu laaw amu itam loo ko fóote mbaa boog da nga ragal ne boo fi nekkee di ko fóot far waxtu raw la ab ràkk sax doo ko ci am su boobaa kon da ngay julliwaale sax ndax buñu nee julliwaale sobe dee ko def day fekk rek amoo ca ngant waaye ndegam yow say yére yi daa am sobe amoo ndox moo ko fóote mbaa boo amee ndox mi itam boo ko nu fóot bala ngaa noppi rek waxtu raw la doo ci am ab ràkk sax te amu beneen yére mbaa dara kon da ngay julliwaale sobe si rek waaw ngay sàmmonte waxtu wa te julliwaale sobe sax wa in yëkku ndéem dana nekk mu wax xiran di aji yeexe julli li xadami taxaaret ngir ñàkk laab fa xadd xasaa kon na dan ñi xam yi boroom xéewal yaa bu fekkee dane sama yére daal daa am sobe mbaa sama yaram wi mbaa nangam ak nangam ba tax mu yeexe julli ga ba waxtu wa jàll dana am bàkkaar bu réeree daa waroon topp ndigal rek julliwaale sobe sax maanaam yee jit ku amut nit xur yi ngir rafle maa loo xam ne yastur dana suturaale bi ci moom awratahu awraam salla mu julli kazaaka naka noonee fanta bi na nga yeewoo nee na koo xam daal rafle rafle ba amul sax lu mën a sàng awraam ko it bu dee yaramu neen day def yaramu neen rek waaye du ko tee julli te dara du ko ci war ndax ak tëlee tax moo ko tee sàng awraam dara nekku jar wa muxti ul xiblati aji mooy xibla ma amoon ku ñu digal la bi an yoxiida ci mu baamu fil waqti ci waxtu wa salaatin julli xay suxaan amoon na tegtal yu mën a xàmmee xibla ba mu ko defee nag ba ne xibla de fee la ba mu ba jëm foofa nag ba sëlmal seetlu ne ah moom kat fa mu jëmoon du foofa su boobaa julli ga baax na dañuy sopp rek waxtu wa jeexut mu baamu ko jëm fa xibla jëm dëgg-dëgg te baamu ko de moom bu fekkoon ne daa xamutoon xibla gisul kooku wan yoon ne ko léegi tànnal rek fu la neex julli jëm mu daal tànn fu ko neex julli jëm ko kooku lu yàgg-yàgg du aajo woo muy baamuwaat def na la ko war mu des nag bu fekkoon daa nekk ci biir julli gi ba noppi nag fàttaliku ne ah moom kat fii mu jëm ci julli gi du xibla kooku aajo woon a teqale bu dee koo xam ne moom njàccaar la maanaam dana gis bu wér wér te la mooy la bari kooku day dagg moom day dagg tàmbaliwaat mu des nag bu fekkee gumba la moom lu mën di mooy rek lu mu bari bari gumba gaay tax ñu jéggal ko day day wàññal bi ko ndànk ne jublu xibla waaye du dagg ak koo xam ne njàccaar la dana gis waaye tuuti la mooy la mooy bariwut ba tey day jublu rek ndànk xibla daal di wa kullu lépp loo xam ne yoo xaag def na ko baa mu fil waqti ci waxtu wa laa xayru du caagéen ci lul waxtu wa fa innaha naka moom fadil suñ ngëneel la mil te yàlla na nga am almuraada na mel nga nee na saa yu la digalee baamu rek ci waxtu wa yem ca xamal ne kon julli nga gën a njëkk na julli baax na fekkoon ni baaxutu ne lay wax baamu ko faw faw faw waaye boo déggee mu ci waxtu wa rek xamal ne baamu ko ak sopp dong la te ngëneel la rek te boo waxtu wa xasee jàll it noon la moo tax mën naa wax ya mislu nafli kem naafila la laa tuxaadu defu ko baamooti in xuruj waqtiha ndem génn waxtoom wa xat umina wóoloof na ko yaqinan ci lu wóor bu le nee julli sàngam baamu ko ci waxtu wa moom naafila ñoo yemoo bu waxtu wa xasee jàll du jaret nga di ko baamu naafila it noonu bu waxtu wa xasee jàll kenn du ko ba kenn du ko fay mbaa dara xanaa ñaar ak ay daal lañ gis muy rëx yi bëtt moom ñu mën koo fay la tàmbalee fa jant bi fenk yëkkati ko ñetti mètre ba tisbaar rek waaye ku bokkute moom ci xeet naafila yi moom deesu ko fay loolu ñu ne nag in xuruuj waqtihaa ndéem génn waxtoom wa dañ koy bañ ci naxu boo bëggee wax itam in xat ummi na tegaat ci xuruuj waqtihaa it dañ koy bañ ci naxu waaye loolu nag ñi gëstu ci naxu lay amal solo xay na ki toll fii moom mën naa jàng rek nu ko firi rek baax na ba wees foofu faslun li ak dog la fi faraidi ci faratay julli xaddu faraidi salaati li mu faratay julli yoon rafu def na ko xam laakin na ma suyoox waaye sëriñ sa ixtalafu wuute nañu fii ca lim ba ndax wa baxduhum lenn ci ñoom dakara tudd na xamsata xashraf ka juróom faridatan ci ay farata wal baxdu lenn la tudd moom sittata xashraf ka juróom benn nee na li mu faratay julli xam nañ ko waaye sëriñ si wu dañ cee wuute daa am ñu wax fukk ak juróom benn laakin na ma waaye la nga xam ne dakara tudd na ko al axdariyu abdurahman al axdari aati ah, danaa dikkee bii ci moom li yaxfasa ngir mu mokkal ko assabiyu xale ba muy e gone ga mu ne waaye man nag ndegam damay woy rek weesaru laxdari kon damay fekk rek la borom laxdari andi woon rek ma far ca yam andi ko mayit moom daa mel ne boo ko dee wàññi li andi fukk ak ñeent lay doon du mat sax fukk ak juróom awwaluha aji jëkk seen niyatu naa mooy sunu yéene al muhayyanatu jari juñu ràññeel ba ci njëkk mooy yéenee joox faratay julli googee teew bu dee goo xam daa wéy itam nga yéene koo fay yéene ja faaw nga ràññal ko bu dee tisbaar nga yéene tisbaar bu dee takkusaan nga yéene takkusaan bu dee timis bu dee gee noonu bu dee suba noonu su ma ta takbiratu foo topp kabaram ba al mu bayyanatu ba di buñ biral wax nga allahu akbar te mooy ba ngay njëkk a njëkk wax ci julli gi ba tey moo tudd kabaru armal farata la wa misluha am kemam la fatihatun fatiha suma xiyaamu topp taxawaay ba li ajli haatayn ngir yi la yaar kama nasa naka mu yàqale alimaam ilimaan ba maanaam jàng fatiha farata la ci bu dee yow dong yaay julli wala ngay jiite de soo dee maamu am na ku lay jiite moom dañuy jàpp ci yoonu maalik ne ka lay jiite bu jàngee rek jàngaale na la xam ne bu dee biréew sax dañuy sib yow ngay jàng noog moom su ko defee nag nga wàññi taxawaayu wax nga allahu akbar ak taxawaay jàng fatiha ji kon loolu juróom la ndax boo ne yéene muy benn nga ne wax allahu akbar muy ñaar sa yeb wàññi ab taxawaay muy ñett nga teg ci fatiha muy ñeent nga wañ waal taxawaayu jàng fatiha gay tam muy juróom waaw du limal rukkoo xam rukkoo su ma raf xam topp siggi min hucc rukkoo was jub te nga sujoot alal jëp xati cib jë war fax te nga siggee min hucca moom rukkoo farata la rukkoo nag boo sëggee rek ba say téng jege say bëti woom rukkoo am na waaye na nga jàpp ci say bëti woom bu dëgër dañ gën a taamu rukkoo mooy juróom-benneel siggee ca ba nag farata la da siggee ca rukkoo ba waaye noonu nga sëggee woon rek ca rukkoo boo jàllee rek da nga bàyyi siggi ba te siggi ba farata la kon juróom-ñaar ngi foofu sujjóot mooy juróom-ñetteel bi ba tey siggee ca sujjóot ba ba tey noonu farata xam ne kon sujjóot ma juróom-ñetteel siggee ci sujjóot ba ba tey mooy juróom-ñeenteel waxu dana nga limaale min xaa ca farataye al ihtidaala yemoo ga yemoo mooy jubu cër yi xocc maanaam boo siggee ci rukoo ba da delluwaat ba jub xocc boo ci sujjóot ba nga delluwaat ba jub xocc waaw fi mu toll nii di nga jàppee ci woom yi boo siggi woon rek ba xaw a siggi waaye juutu àgg ca taxaw jonn jonn ba ne tekk da nga bàyyi ñaari farata ndax siggi ga ba mel na nga meloon ba nga sëggagut moo tudd irtidaal jubug cër yi farata la ne tekk itam ba cëri dal nga door jàll daañu ko wàññi léegi mooy ci sës sax moom itam farata la kon jàppal ne siggee juru ko siggee ci sujur luñ fan doon siggi ba da ngay dellu ba mel na nga meloon ba nga sëggagut jub xocc loolu moo tudd irtidaal farata la wa kasaani ki nii xaddu tum aninati li mug dal ga uxi sa jàpp na ko an hum jële ci ñoom ba tey foo tool julli gi loo yàkkamti yàkkamti nga ne tekk ba cër yi dal tekk boobu farata la boo yàkkamtee mel ne picc muy cof rek lool lool du baax gannaaw tekk nag bu cëri dal loo ci yokkaat ci sa coobare nag nekk waaye tekk nga moom farata la parti bu naa ak sunu toftale baynal faraidi diggante farata ya toftale farata yi mënta ñàkk toftale farata yi mooy allahu akbar ak ji ñooy ànd jiitu jàng fatiha ak taxawaayam topp bu ko defee roko ak siggi topp ca sujjóot siggi topp ca nga di ko tegale noonu benn rakka ba asalaamaaleykum mujj bu fekkee tegale noonu julli du baax boo doon julli tàmbalee ko jàng fatiha mu yàqu boo doon julli tàmbalee ko tey ni mu tegaloo ba tey mu yàqu da ngay nag sujjóot ba nga ko waxee moo yëkkatikoo ci sujjóot ba moo doon juróom-ñeent ca lim ba da nga cee teg ihtidaal muy fukk nga dool ca tumaan dal muy fukk benn nga teg ca toxsale farata yi muy fukk ak nga teg ca nag assalaamu ak sëlmal ba dulloo suufoo ak jataayu sëlmal ba min al tàmbalee ci al ilaakum ba ci kum yaa xulaaman yow wax gi asalaamaaleykum day farata mooy doon fukk ak ñett ci ni wàññee ngir ba ngay wax asalaamaaleykum